man mënu nan la nit mun a rabee di di tëbi riim ñu wóor na yàlla te léegi looloo fi am léegi ah li fi am léegi xale bu xiif di jooy defare ko sombe mu naan si si bu naanee biir bi feex yóbbu ko mu saa wi teer bu ko fàtteeku sinon day day lal bi si si xale bu xiif di jooy dafa ko sombe mu naan si si bu naan biir bi fees si si sa bu bul fàtteeku bu ko fàtteeku sinon mu day lal bi <laughs> loolu fi am <laughs> mun naa jël sax xale bu xiif di jooy jox ko mu naan si si bon bi ngay waxal bu naanee bi biir bi fees yóbbu ko mu serviteur yi si si bu ko fàttee kuus sinon day day lal bi si si xale bu xiif di jooy jox ko fonde mu naan si si bu naanee biir bi fees yóbbu ko mu serviteur yi si si bu ful ko fàttee kuus sinon day day lal bi <laughs> sa waay loolu mun naa ci def cent mille te wax ji sax du la sisi alibukubijo yokuzumbi muna sisi bunane bifa jebukum sabilali sisi bukofate kuzina mudayilali sisi alibukubijo yokuzumbi munan sisi bunane bifa jebukum sabiteri sisi bukofate kuzina dayilali sisi rabbo mo fam moy xam lo kali mo len di daanu lo way <laughs> boobu moom mun naa cee bind cent tonnes par jour cent tonnes cent tonnes par jour mun naa ko cee bind <laughs> dama wutul man suma wut lu nooy musuma wut bu nooy bi wala rab yu amul riim wax nii rek wax nii rek temps bi gën a metti muy gën di kuul ñuy xool lu ñu demee man booy xool dama lay rey mooy paaka laay génn jam la xool mais comme kuy waxtaan loolu ku loolu ku ko vraiment loolu xam nga lan moo n'importe qui ne pouvait pas être rappeur parce que dañuy bind di xóotal di tek ay rime di wax suñu soxla lolou motax n'importe qui ne pouvait pas rapper mais bu yobé yóbbee rab bi léegi ci xale bu xiib di jox ko sombe mu nan loolu moo ñep motax Sénégal fu né lu mu am ci rappeur kenn xamul lu mu tollu parce que amatul rime amatul punchline amatul next level amatul name dropping amatul punch style amatul technique amatul dara da ngay ñëw rek di wax.